suñu pas-pas ñun ci waa Louga ci sëriñ mooy fexe ba fépp foo xam ne si sëriñ Tuubaa dafay woote mbooleem sëriñ Tuubaa donc yëpp bépp ko fii ci Louga di dem ba xëy fa benn pas-pas lañ am mooy liggéey sëriñ Tuubaa bi fas yéene ko teg ci suuf nañ ko teg ci kaw sëñ mu doxaa dal jël liggéey sëriñ Tuubaa bi ci kaw booy ko defee bu ngeen bëgg sëriñ Tuubaa dafa kon liñ bëgg la fii nañ ci def luñ ci mën ak luñ ci mënul bu ko defee suñ jubaa jariñ fii fañ fii ak fañ jëm ndax ñu nit bëgg tey suñ jubaa moo koy suñ jubaa nee li suñ ci ci at ci àdduna yëpp soxla ko ko teg bu baax bokk ndey bokk baay bokk pas-pas bokk benn jëmukaay muy kenn rek ñu jëmmal sëriñ amul ma sàmp amul ma dem suñ jubaa rek ku la wax sëñ Tuubaa àndal ak moom ku la waxul sëñ Tuubaa ko foofu xam ne da ngay tardé am murid sëñ Tuubaa la war a ku dëgmalul sëñ Tuubaa da ngay tardé rek murid yi dañ lay koo fi gis tey jii am na ngërëmal sëñ Tuubaa wala jege na ngërëmal sëñ Tuubaa dafa nekkoon di génnal sëñ Tuubaa te ko dara ci def ñaar fukk bul ko xeeb ku ci def juróom bul ko xeeb ku ci def téeméer bul yéemu li nga jëf ndax sëñ Tuubaa kenn bi yokk ay mbir ndax Cheikh Fall dana wax ni waxoon na ko signal bu ci njaay mu ne ko bu ngeen doxee ba dem na ci biir njaay jàpp ne daal bu ngeen teg tegaat ngeen dolli waat tegaat ko jàpp ngeen ne jege ngeen Sëñ da ngay nax seen Sëñ ba xëy bu baax di ñaanal ñëpp jàmm bi ñu jëm muy bisu xasde bi ñu jëm yàlla ñu Sëñ Tuubaa loolu yi ci am yëpp suñu borom matal jërë ngeen jëf ñu ngi siyaare bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah وبركاته